رضيت عن المولى ما الذي ربى màggal gi dañu ngi sant yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba di ñaanal borom bés bi di sàkku ci moom ñaan di ñaan ci yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ak maam Cheikh képp ku fi teew ren yan na ko téewaat ay ati at yu bëree bëri buñ ko fekkee yàlla nanu ko tal ci daraja yàlla ak yonent bi ak borom daaru salaam màggal gi day wax dëgg yàlla ñu ngi sant suñu borom bu baax de ñu ngi ñaan rek mu doole ko rek sax dakk rek. yal na nu yàlla xiir ci sëñ bi ñu commencé ci sëñ bi yem ci sëñ bi ci daraja yàlla keneen ba Serigne Touba jëf ku baax. noo gisee noo gisee Karo Karo ñaar di ubbi jumaa ji muy muy aju ma bala jaal te jiite mi ñaar di magal ngaa di gis mbooloo mi xaw a takk lool noo jàngate ah la ma jàngate loola rëy na ndax nag Serigne Touba amul morom Serigne Touba amul morom Cheikh Anta rabati ko ndax tubaar fa kàlla borom gaawaan borom dërëm ak ngërëm macha allah bu bu yegsee ba mu yegsee dafa mel ni màggalu Tuuba waaw loola lañ ci doon ñaan yàlla ba ko suñu boroom jàppalee ba jumaa ji mat ak jàmm ñu ubbi ko ci bisimilahi rahmaani rahim yal nañ ko ci eggalee ci alhamdulilahi rabbil alamina doolay ahmadul xadim tubaar fa kàlla dañuy sant tey gërëm borom gaawaan ñu koy sant bu wër di ñaan te sakku ci ñoom ñaan njaboot ak Serigne Touba gi yal nañ yàgg te wër noonu lañ koy ñaanal waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall. ñoo gisee ah màggal gi moom macha allah ñun gi rek la ñu am neex macha allah wax dëgg fa yàlla kontaan nañu dañuy ñaan yàlla sak at rek ko jaamu yàlla yëpp mën a ñëw di ko màggal ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah xanaa gën a kontaan rek ndax loolu lañ fi am mën ko loolu daal lañ fi am màggal gi lañ fi am wax dëgg fa yàlla bi ñu wootee julli eh, ubbite jumaa bi macha allah ñun ñëpp ñëwoon nañu kon nag dañuy kontaan rek di ñaan yàlla rek muy gën di yokk sak at rek muy gën di yokku xanaa sant yàlla rek sant maam Seex Anta sant Xaadimu Rasuul danoo siyaare si ñun di ñaan it ñu yàgg fee daje ci barke Serigne Touba dara jay maam Cheikh Anta màggal gi nag moom at mu joo dana yokk waaw ndax sëriñ Touba ni toll ak maam Cheikh mi xam ne moom mooy loxob sëriñ Touba waaw ñu jógee nag ci suba tarxiya daara Atou Diagne di taalibe foofa di liggéeyal adiya waaw di ñaanal mu tàqaa yàgg fi lool ci ànd ak wér eh, dama laa njëkk a wax ne Serigne Touba ñu toll dama ne la. Serigne Touba ñu toll ca kii moo doon ne loxoom ba muy dem géej da ko waccoon ku njabootam kon uh, ubbi ubbi gi ñi mu toll màggal gee ñi lay toll bu déwee ne da koy yokk waaw kon yéen fi yàgg daje. ci darajay Serigne Touba darajay maam Cheikh. maam Cheikh dama waxoon ne. Serigne Touba. mu ne bu màggalee demam ga ngir dogal ba. may ma màgg ñëw bu ñëw gi ngir ba ba soppeem ba. ndaxte la màggal saa yi demam sax. mooy war a màggal baat ñu ñëwoon bi. daal ne bisimilah woot màggalu fi Daaru Salaam. waaye ñoom booy dellu am xayru maraam. bisimilah màggalu moom laay woote. waa ji ko màggal màgg bul ko wuute. loolu moo tax ñu ñu ñu. mooy am xayru maraam boobu. moo lañ fi sàkku si moom indi si màggal. yàlla nañ ko yàgg yàgg a fekkee rek tam yàlla na ko yàlla ko yokk te yaay xëy a ndax te yàlla jox doxuñu baat boobu maam Cheikh Anta wax ne ku ci ñëw booy dellam xëyul maraam xëyul maraam boobu suñu borom defal na ko ñun ñëpp ñun mboolem ñu fi taxaw ñu maagal di wax dëgg yàlla depuis suba ba léegi ñu ngi fi mais nag wax dëgg yàlla gis nañ ci loo xam ne si depuis ci suba ba léegi ñoo ngi fi mais yàlla gis nañ ci loo xam ne si wax dëgg yàlla seet na suñu xol trop wax dëgg yàlla nit ñi ñëw nag aussi suñu daal tamit dalal nañ ñu bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla waaw. daal añ nga ba suur. añ naa ba suur naan naa ba man di wax dëgg yàlla ma gëj a lekk naa ko tey wallaay la asim. noo gisee gone wax dëgg yàlla macha allah macha allah wax dëgg yàlla moom moom liñ liñ liñ li taxaw ñëw fi daal rëcc wuñ ko benn yoon moom wax dëgg yàlla. maanaam fa nga daloon moom topp topp toppatoo bu baax a baax jox nañ ma añ bu baax yu sedd yi tamit wax dëgg yàlla damaa lekk damaa lekk ba suur naan ba bàyyi fa barki Seexul Xadiim séeréer laa barke Serigne Saliou Mbacké